ndaw si moom salon de massage bii di Sweet Beauty li moo di ba mu ñibbee démb soxla woon na massage ubbi l'observateur moom Ndeye Khady Ndiaye yéenekaay bi nee nañu def na ci bureau Omar Maham Diallo juróom-ñetti waxtu yu tojul minutes 10 heures ci gi ci la duggoon tribunal 18 heures la fa génn ba ko doyen bi doon entendre ñaari awakaam ñoo ngi toogoon premier substitut bu procureur de la république bi mi ngi toogoon li ñu koy toppee moom démb ci yoon moom Ndeye Khady Ndiaye juróom-ñetti waxtuy lëm waaye fa mu taxawoon fa la taxaw ba léegi seetal na Ousmane Sonko ci tuumay viol gi ñu koy jiiñ wax na feet ay mbir yu rëy dem na ba wax gis bi ay turi personnalité yu nekk ci réew yu ko proposé woon ay millions ngir mu taqal Ousmane Sonko beneen xale bu jigéen bi newoon ca salon de massage baak Adji Sarr journalisé ko mi ngi ñuy xamal ne moom it yoon dina ko convoqué ngir déglu ko jëkkëri Ndeye Khady Ndiaye moom tey ji ci àllarba ji ci lañu ko woolu ca tribunal sursoi nañoo talaata ndeer dëgg la Ndeye Khady Ndiaye dund démb ci talaata ji ca tribunalum Dakaaru ne 10 heures ci yor yor ba 6 ci ngoon ma nga woon toog ca kanamu juge di tontu ay laaj ñetti avocat ne ca wetam doon ko taxaw bokk ci ñoom maître Ibrahima Mbeng ginnaaw Ndeye Khady Ndiaye ak yoon nañuy wax ci meneen ndey mu di Ndeye Fatima Dione mi ne woon Miss Sénégal coow li mu fi yëkkati woon ba doon wax ne dañu ko violé woon ba mu jële ci ab ëmb l'observateur ne nañu waa DIC di division investigation criminelle pare nañu enquête ba ñu ca doon def ba def seenub rapport ñi ñuy tudd ci comité d'organisation bi Pape Faye bu comité d'organisation bi ba ci ndey mbili ji di Fatima Dione ku ca nekk ba nga demee ca brigade des mœurs la nga fa wax l'observateur xëy nañu ko wax ndey Fatima Dione nee na ci ab gynécologue am ci la xamee ne dañu ko violé fa la xamee ne dafa ëmb libération nañu Fatima Dione Miss Sénégal 2020 ay waxam jarutu duma sa doom ndax ñii di enquêteurs yi ginnaaw ñetti weer yu ñu nekk ci fii di ci enquête la ñu ci conclure tënkee ko ca moo di waxi viol moo ko inventel boppam témoignage yi Alberta Diatta def ca police li vidéo surveillance ñaajo nañu moom Fatima ba mu ne police yi dinaa leen indil sama certificat d'accouchement ak acte bu sama doom ca la ko police yi gëj a déggee gi ñu dégg démb ca Casamance yéenekaay yu bari xëye nañu ko enquête yéenekaay bind ne banditisme gi dellu na ca Casamance rebelle yi ginnaaw bi ñu leen xañee trafic de bois bi xañ leen mbayum yàmba dafa mel ni léegi leen rekk leen dese mu di dogaale nit ñi di leen baraake démb rekk dund nañu bi di kilifa ci la bokk Les Échos ne ko moom la kilifa ak lenn ci ak njabootam gu mu àndaloon chauffeur bi doon dawal seen wata ba mi ngi nettali ci yéenekaay bi ni ñu leen baraake ñu baraake dem ci la témoigne mi ñu xamal ne ndakaaru mi ngi sedd guyu ndax waxi ndox ak forum mondial de l'eau bi ñu fay amal Casamance moom tàng jër ndax fitna ju kilifa yu bari ci àdduna bi ñoo ngi daje ci ndakaaru di waxtaane wàllu ndox ci jamono jooju fital yaa ngay tàkk ca Ba nee nañu l'armée bu Sénégal nangu na juróom-ñetti base yoo xam ne Salif Sadio ak i gaayam ñoo ko yoroon journal bés bi le jour moom xëy gàttal wax ji li mu bind ci xët mu njëkk moo di armée bi rasé na lépp faat na fipp yu bari ñu bari ci fipp yit daw nañu wëqet